maa ngi tudd Mamadou Seck euh, nekk secrétaire général adjoint euh, ci regroupement des tailleurs de Thiès. tey moom euh, fii ñuy wax ak yenn tiit ak njàqare ci sunu réew ci sunu dëkk bi ñu dëkk muy Thiès ñuy ay artisan doon ay tailleur demuñu ca marché ba di kaas fii ñu taxaw di wax fii mooy sunu kër fii mooy chambre des métiers de Thiès fii lañ taxaw tey di wax sunu tiit ak sunu njàqare ci lii nga xam ne moo xew ci ginnaaw bi ñu ñawee deux cent cinquante mille masques jox ko ki nga xam ne moo fi nekk sunu maire dëkk muy monsieur si la ñu jox ñu ay délai quatre vingt jours ñu mayaat leen une semaine mayaat leen quinze jours ñu jox ñu fukki délai ak juróom-ñaar li tax ñu tiit nag bu ñu ko benn citoyen simple waxoon duñu ko duñu naqari mais sunu njiitu dëkk sunu njiitu ville. mu jox ñu délai ñu toog boole lañu naqari dem nañ ba dal ci suñuy kaw yi président mooy ñu nekk suñu ginnaaw tey dem nañ bay dal seen kaw ci maslaagu gu miti askan wi nag bu ma ko waxee mooy tailleur yi nekk ci marché yi ñoom la ñuy wax ci seen tur ñoom ñoo moom xaalis bi ñun ñoo defar lépp préfinancé ko pour mu leer ñaw deux cent cinquante mille masques livré ko ci secteur informel bi ñu ci délai bu gàtt ñu jox leen ko ndax mbas mi bi ñu demee nag ba def ko dañoo jàppoon ni ndimbal la ci ñun mais jural nañu loraange ñu bari génne nañ leen ñu bari ñàkk nañ seen i compteur ñu bari coupé nañ seen courant ñu bari leneen ak leneen dal na leen ñi xaalis bi mi ngi toll ci cent million ñun waxaluñu parti sangam wala parti dengam ñun cent million la ñu ñaw muy deux cent cinquante mille masques war ko fay. téyeeru Cees yi ñoo ko moom ñu waroon ñu ko jox ñu séddal leen ko boobaak léegi nag pour wax leen ni ñu ngi ci quatre mois cent vingt jours yu ñu toog di ko mbuñ kon kooku xam nga ne buñ ne la muñal muñ nga ba sës délai bi ñu joxoon ñaari ajuma nanguwuñu ko woon mais suñu njiit yi ñu jaajëfal leen ndax dañoo ànd ak ñoom ci loolu malgré sax ñu neexuñu ñu may leen ko tey yi ñuy wax ak yéen nag tey lañu sës di wax autorité yi dëkk bi di wax monsieur le maire nañu jox sunu xaalis le plus rapidement possible may ñu délai xaar ñu dele weekend lañu ne waxoon nañ premier point de presse bi ñu ne ñu ndax menace la wax ji ñuy wax nag du waxi kuy xoqat du waxi kuy ragal menace la nañu fay suñu xaalis nañu nañu fay nag xam nga sénégalais lu ñu xam dañuy bàyyi ba coow am ñuy wër di atte dañ ñoo tooñ yoral ñu sunu xaalis ñaanuñu yalwaanuñu dañ koo ñawal mu war ñoo fay ñaan nañu lim ñu waroon a ñaan ñu may ko ko ci njëkk ak teraanga fii lañ mën a yem te sës nañu bu ñu fayal sunu xaalis bu altine muy ginnaaw suba ak leneen la ci topp lu mu gis rek ñu na. 40 millions yi bi ñu joxee 20 million jox ñu segg vingt million dañ koo téye. ndax mënuñu koo séddoo ndax bu ñu ko séddoowee frustration la suñu biir ndax ñun ñëpp benn bopp lañu ñu na ñoo def nag ay pexe pour jéem ñoo diviser fii ñu xamal leen ni ñun ñëpp benn la ñu tey benn la ñu ëllëg li ñuy xeex mooy les million yi nga xam ne yoral nañu ko te li ma gën a naqari gën a naqari artisan yi mooy tey jii ñuy wax ak yéen la ñuy waxoon ne ci la ñuy solde suñu 60 millions ñëwuñu fi yónneewuñu fi wootewuñu fi gisuñu leen dégguñu leen loolu nag dina tax lépp lu ñu leen mayoon bis ni tey nangu nañu ko te 40 millions yi 40 millions yi mi ngi ci loxo président mi ngi ci loxo président bi mu ko jëlee waxoon nañ ko sax ne bu ko jël mais président jël na ay responsabilités jël ko duñu ko delloo ndax mi ngeen moom parce que loolu mooy devoir am mais da koo téewoon bloqué ko pour tey bu ñu dajee ba joxe xaalis bi ñu bari tey jii dañoo jàpp ne tey bu ñu fa dajee danañ joxe seen xaalis mais lii moom ñu wax ko tey te dee nañu fay sunu xaalis nañu fay sunu xaalis